mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñii ñu ngi dëkk ci région Kolda sëriñ bi mi ngi tudd ala seexal Al Hassan Mbacke ruuhu laahi baabu diine noonu la tudd wala noonu lañ ko tuddee boog moo wutu baay euh, kooku moom moo sos tarixa bi wala diine ju bees ji moom nag bi mu ñëwee ne na yàllaa yoon di indiwaale ko alxuraan bu bees bu bokkul ak bi fi nekkoon ndax téere bi mu indiwaale dañ kaa bind ci pulaar ko alxuraan bi yëpp dañ ka bind ci pulaar benn yaxu arab amu ci seen alphabétisation bopp lañ ko bindee ci langue pulaar ñu ne téere bi yàllaa ko wàccee ci ñoom wala yaasu billah e, dund na ak taalibe ay at de ni mu daan def nag da doon lotire at mu jot bu lotire dafay bantale boog ci ta muqaddama mi yëpp képp bu tabaski jotee képp koo xam ne rek bant bi dal na la yow la ñuy rendi tabaski yàlla dogal mu dal ci doomam doom ji ne ko bàyyi ma ma dem jàppi nga nga daal di ma rendi mu daal di dem jël fetel fetel sëriñ boobu fetel baay bi kooku di asan aruhullahi mbàkke tabarakallahu ñu xeexoo ci xeex bu rëy ci diggante fam bi juróom-ñaari bakkan euh, tabarakallahu rot ci ñu daal di jàpp sëriñ ba euh, ki nga xam ne moo ko wuutu ki rayoon baay ji ñu tëj ko juróom-ñaari at ci kaso bu Kolda tabarakallahu bi bu pa waajur wi euh, génne àdduna nag mu di alxasan Mbàkke ruuxullaahi malay ak baaba diini euh, ci la ko doom ji Cheikh Daouda ruuxullaahi jiitu tabarakal alquran boobu ñuy jàng foofu duñ ko wax ci arab ci pulaar langue pulaar lañu koy wax seen diine jooju dëkk boobu mi ngi mi ngi tudd are male den are male are male den noonu la dëkk bi tudd kaay ñu texe dëkk bi noonu lañ ko tuddee ci ci di Kolda dëkk bu mag la nag famille bu yaatu la ay doomu baay lañ ñu am fa ay tool gor fa di fa samp ay garab yu bari dëkk bi dégg naa dëkk bu naat la ndax gis naa ku fa jóge eh, ki fa dem wax dëgg yàlla mbokk mi fa daan dem eh, daan naa ko gëj gis mais ren gisaat naa ko ëppul ñetti weer moom moom dafa sob ni man rek day dem foofa di gëstu di xam naka la bu demee ne day mel ni daa bokk ak ñoom diine waaye daa bëgg a jëli la ñuy def moo ma nettali ne ma men ren ñoom aj nañ ren ñoom rek ñoo aj ci àdduna bi maana ñoom seen dëkk boobu aj ñu màkka ci seen kaaba gi wan naa la kaaba gi léegi tabaarakallahu ñu ne lii dund sëñ bi nag mooy mbooleem lu mu dégg ca gox ba ci wàllu defar mbokk moom da koy dox ku fa mënul dara yi dañ la def bu la lebalee munoo fay itam te ñu xam ne munoo fay ñu tibbale seen baytu maal jox la waaw seen xalifa daal ki nga xam ne mooy seen seen sëriñ daal mi ngi tudd al Cheikh Al Hassan baaba diine doomam nag moo ko wuutu Cheikh Daouda Assane baaba diine mi ngi dund ci dëkk boobu mi ngi tudd arrêt Maledem ci réseau Kolda tabarakallahu wasalaamu aleykum wa rahmatullah woni mawɗo mi settim ndeweteɗo ala siwana allahu mi settim sayko alhasan bakke ruuhu ko o nelaɗo allahu ngare tawe ɗon juulungu ngare tawe ɗon moƴƴe ngare tawe ɗon nde moƴƴe njuulu daranam njuulu daranam allahu woni mawɗo nde weteɗo ala siwona allahu allah neli baba dine an allah an joomi amen wata fof min hunde komin kattanta muñan min jaafoɗa min jurmoɗa min paaboɗa min he ɓe yimɓe sayi seyoɓe an joomi amen bila jippinɗa nelumagu e sayko alhassane mbakke ruhu mbiɗon jaaɓi mbiɗon kooli wattu min e cettantoɓe gonga allah sayi eɓe peeja allah mo feeja kono feere allah nde wurtata an joomi amen wata woñmin te ta a fewnunomin ma mbiɗon ma ñaagui jaam e kisal an woni okkirowo eɓe garata mbakkilano allah ɓen ta pewma laawol ɓurgo feew he laabi gon laawol ngo moƴƴiranɗa moƴƴuɓe ma ɓen moƴƴuɓe ma ɓe gonaɓe loɓanɗa ɓe gonaɓe majjinɗa allahu woni mawɗo mi innum allah jiiɗomo o yurmeede huɓtude aduna o jeeyi yurmeede heertoraande laakara ndendaangal jettooje allah uɗen gooden jiiɗomo o tagoore nde joom yurmeede huɓtude aduna o jeeyi yurmeede heertoraande laakara o jeeyi ñalngu jobdi diine koɗo mahmin ndewata koɗo mahmin mballintoo kolla min laawol ɓurgo feewe laabi ngon laawol ngo moƴƴiranda moƴƴuɓe ma ɓen moƴƴuɓe ma ɓe gonaaɓe looɓanɗa ɓe gonaaɓe majjinɗa alifun mbamun hawun mi wooni min allah o monelaaɗo am o naaɗayɗo te o haa mi wondin min allahu monelaaɗo am am o wonaaɗayɗo te o haa te o haalta belaaɗe ko billaay wallaay tallaay directeur jabal waa xam ne bii bu ñu jàppee kenn ba bàyyi moo dellu si te woti nii man yàlla jaarale na ci man maa fiy dindi lépp yoon xanaa yi jaar dina tuut tuut tuut si sama lislaam ci kàttan yàlla maa ko yëkkati. turi Muhammad maa ko yëkkati turi yàlla maa ko taxal ma ne dinaa leen xamal ne man maay fay tiijaan maay fay du keneen. billaay walaay talaay. Sénégal dañu réer yàlla de. waa jëf billaay walaay talaay nga am jabar baa xam ne bii. nga am jabar baa xam ne bii. kenn du ko ci def ba nga nekk di nga rëccu. il faut que ma ci doog a mën a ji. na ngeen xool tuuti yàggatul yàggatul lislaam dafay tax ci man ngay jaar. directeur kuréel wax première li dara ji ba fii ba fii ba fii ñu tëg gina maa koy seet kenn du ma seet man lu war laa jee li ngeen def nii di ngeen xam ne yàlla kenn la ngeen def recherche yàlla da bàyyi nit ñi rek lu la neex def baax di dëpp da ngay nekk sa kër am yow nekk sa kër moom sa bopp ci ñëpp laay am droit kenn ku ci nekk naa am ci yow droit fekk la sa kër yóbbu la seen futti la ray la jaati dafay wàcc jaati dafay wàcc pour ma di daay jaati bi fii la nekk Jibril moo ko téye day wàcc bien jaati boobu ñaari set la yore du jaati kenn ku lu man ku yóbbu gëm ku yóbbu bañ a gëm yàlla def na ko ba pare ku d'accord yàlla def di ko ba pare ku maa ngi ñaan yàlla nag képp koo xam ne gëmoo yàlla boo gàtt fan képp ku gëm it yàlla boo gàtt fan ngeen jëf bu leen ma jàppe nag comme laa leen li ñu wax naan ñooy Mahdi niroo maa ngooñ